roi des bu ñëwee ci bisu mel nii yoon la nag ñu wax ko ñu wax ko li nga def nag yombul te li nga def lu baax la Dame Sène ñoo ngi lay nuyu. mbokk gànjool gànjool yi waalo waalo yi njaamur njaamur yi parce sat nañ ñëpp gërëm nañ ñëpp du gërëm sama waa ji suñu grand suñu frère suñu lépp Modou lépp luñ nekk dañuy nekk ak ñun xeebaluñ suñu dara di nga ñaan suñu borom dafa ko tawfeex dafa ko jàmm di nuyu grand yaa grand Tafa junior Bastafa Goro Sok Franc di leen ba bu baax gis nañ ñu taxawee ci combat bi di nuyu waa Jàmbaar académique di nuyu kos su ko kos lato grand yaaram Tafa Zior Balla Diouf Bastafa Gueye nuyu ñëpp nuyu Papa Sow bu baax nuyu Mam Père Ba mi ngi taxaw bu baax di nuyu waa waa parcelle 1 ba 26 di leen santaat di leen bëgg waat parce que woote ñu wuyu si la yombul rawatina gars yi nga xam ne na seen yitte bàyyi seen lépp ñëw teewal ñu kon nag li ñuy def jaajëfal di leen jaajëfal bu baax di bëgg daam wàccaayu bis bi ak bis bi ngay bëree. waaw bis moom bis la rek parce que lamb moom mën naa ni ku def treize combats mën naa lamb du roo ci gan bis la rek comme bis yëpp waajal nañ ko war a ni ñu ko war waajalee des ñu ngi bàyyi si su loxo suñu borom le jour si borom defal ñu ndam. Modou Lo seen digganteeg booy bi mu am bis bu rëy dox ci diggante moom ak Modja tey nan ngeen koy waajalee. waaw salaamaaleykum d' abord damay nuyu journaliste yi ma fi fekk yëpp di nuyu waa parcelle fii rawatina waa Unité 25. waaw combat moom comme nu ko daam waxee rek macha allah champion la muy xale bu jàmbaar respecté entraînement am te ñun lu ñu nekk moom moo ngi ci ba tax na lu mu nekk rek dañ cee a nekk amaana tey maa ngi soog a ñëw open press yi pass yëpp daf may fekk ay voyage ak yooyu noonu waaye tey moom dama ne lu mu xat-xat dinaa jaayante mu ñëw parce que vraiment nit ku baax la te ku mën sonn ci bisu nit la gars ku ci am combat day mel ne combat la xam nga saay saay bi quoi vraiment dañ koy ñaanal yàlla may am ndam yàlla na ko yàlla may ndam bu sedd buy di leen wax jour boobu parcelle la bisu parcelle la te Garga 2 mu ngi ci war a bëre Talba mu ngi ci war a bëre ak yeneen booy ak Ardon ba tax dañu bëgg waa parcelle yëpp mobilisé wu ñëw jàppale seen doom ñu dem yàlla may leen ndam ñu indi ko parcelle incha Sénégal jëm kanam bu soobee yàlla. jërëjëf jaajëf. waaw yow rek sànni ci baat rek. santal woo ñëpp waaw bu leelu weesoo di gërëm grand maam sax kuy sonn si mën la Ousa 2 ñoo ñoo ñu dugal ci ñoo dugal ci làmb maam sax Ousa 2 maam góor sam patron dañuy sonn ñu man baax samay saf sama entourage yëpp maa ngi sant leen gërëm staff bi Matar Ndiaye si président bi lay commencé per lan ngay waaj lan ngay ci bis ba balaa ngaa wax dara waxal ci bi sa diggante ak Modja yéen ñaar mbëkkante ngeen ngeen def fair play bu doy waal mais jour lamb ji lu fay am waaw jour lamb ji moom fu la fay lañ ci wane parce que ñi topp suñu ginnaaw nii ay caaxaan tax ñu topp suñu ginnaaw fulla fayda la ñu leen di wan allah le jour si fit fulla fayda ak jom loolu la ñu leen di wan si kàttanu yàlla jour si nag moom day ñaan suñu borom kàttanal ñu parce que mu ne ma wax ju bëri parce que mu naan lu ay ñetti fan des wax jërëtu ñu bëri li ñu war a wax yëpp wax nañ ko saa dañuy woo rek gars ñu jàppale parce maa ngi leen a jàppale ñu Pape Malick Ndour monsieur ah premier ministre Ba grand mu tamit day sama grand la grand Tapha Cissé si la dëkk baax. grand Tapha Cissé maa ngi leen nuyu tey seen doom woote muy Dame Sène ban taxawaay ngeen ci am en tant que doomu parcelle. waaw mais xam nga Dame seen dafa nekk une fierté non seulement des Parcelles Assainies mais ñun dafa nekk suñu fierté en particulier cinq 25 22 26 parce que effectivement roi des arènes mu ngi nii parcelles yëpp dañ koy sagoo dañ koy ndamoo. mais daam moo ñu gën a jege te gën a jege gën a yaay donc nag ñun dañ koy ñaanal bu waa ji paree bu Modou Lo paree ci roi des arènes yàlla na ko yër ba doyal nag loolu lañ lay yéene mais incha allah daam jël ko parce que moom moo ñu gën a jege. moo balaa daam di ko jël na ko jox franc ba pare. waaw franc ko joxee franc ba pare ñu ngi ziar ñu ngi ziar non xam nga loolu yëpp day wane ni Parcelles ni dañu bëgg ñu am taxawaay bu dëgër dëgër dëgër lii suñu ndam la ñun nii gis leen ñoom ñuy si ay frère ñu ñu bokk. parcelle ñu représenté fi parcelle ku ci nekk ci zone bi nga koy représenté domaine bi nga koy représenté nga représenté ko donc li ñu bëgg daal mooy comme que roi des arènes bi dugg na parcelle dootu fi génn ci cartonu yàlla loolu daal lañ bëgg Modou Lo jàpp ko ba mu dëgër kii suñu élément la suñu waay la suñu frère la macha allah ko am taxawaay dañu yàgg a jàppante te saa amee ndam day jël dip euh, drapeau am ñëw ba suñu kër remercier waat donc loolu nit ku am kóllëre ba mu ñuy defal kóllëre moom ñun defaluñ ko dara dañu woote fii point de presse yàgg na boobu musuñu xamanteeg moom jékki-jékki gis ko mu toog nee naa ko loolu lañ jàppanteeg yow te moom incha allah dañu koy gunge di ko gunge ba ci kàttanu yàlla mu bokk ci roi des arènes ñu ngi lay supporté bu baax a baax waaw di ko waat gars yi autorité yi dañu jàppale bu baax ci wàllu biir yi ndax fi mu nekk affaire trop di woo président Pogis Wague yàgg na cee jàpp ñu ngi xaar ci bis bi Cheikh Kouyaté international Daouda Mbow Pape Habib Gueye Lamine Diack Alta jël waat ñu jàpp ci affaire yi bu baax parce que fi mu toll affaire yi métti na na si jàpp maam sam sama patron di ko waat encore une fois di woo waa jàmbaar waa jàmbaar académique ñii di ko waat ci combat bu baax a baax a baax di bay